lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. salaamaaleykum na def. man daal ci série Madior ak Dior bi laa bëggoon wax parce que Madior ak Dior ñun dañuy bàyyi suñu temps yépp toog di seetaan Madior ak Dior waaye Madior bi ak Dior dafa mel ni comme li kooku wax rek puusul paasul avancé wul ñun bi ñuy jëlee joor ci hôpital bi problème boobu siiwuruñ ko ba xam nan la mujjee xanaa nit ki doo ko internet ci benn hôpital xëy jël ko hôpital ba topp ko mu réer Madior wariwut demul police deful annonce deful dara bu xëyee takk ay veeram dem bu tàmbalee ak yaama du eggale naar joob nekk à chaque fois lu ko neex mu def lu bon lu mu def génn ci lu mu def ñoom duñ def dara échec mu mel ni kon lu bon moom moo ëpp lu baax mais série Madior joor Dior ko bind nañu respecté ñun ñu koy seetaan mu jox ñu boog sax loo xam ne ñun dinañ ci mën a jàngee ne kuy def lu bon un jour di nga ñëw nga perte wala un jour di nga ñëw yàlla weerlu wala un jour di nga ñëw ñu punir la wala li nga def waaye xoola ñun Madior ak Dior dafa dem ba nga xam ne ñun sax dañ ko boole ci suñu bopp waaye joor ak Dior dafa ñuy réeral ah Birahim Ndiaye bu jógee di di di protéger naar jóob maajoor bu jógee tàmbali benn wax du ko eggale yow nee na moom dafa bëgg joor moom àddunaam joor la léegi joor réer yow nga mën a nekk ci sa xel bu dal mën a tëdd mën a solu mën a wër ah di ay gént di ci joxe ay plainte te am ay preuve waram nga mën a topp preuve yi nga am nañ nañ nag nañ ñu respecté nañ ñu jox ñu loo xamante ne bi produit buñ mën a seetaan parce que nag waa produit Pikini production moom ñu ngi lañ leen di si waaye duñ ñu indi leen mais dafa mel ni comme genre dikkoon rek lañ ñuy indilaat. asalaamaaleykum Ah, neex trop macha allah bu ma ko tardé bu ko tardé moom même su ma ko tardé rek toujours bu jot damay jël sama téléphone télécharge ko daal di koy seytaan mais film bi boo ko seytaanee rek da ngay xam suite daal man si li ma jàpp parce que yayu joor il faut ñu ko bu ko defee ñaari série mën a feeñ te yayu maajoor yaayu maajoor day seeg paa bi ndax paa bi tàggoowuñu deewut mu ngi dund te paa bi dafa nopp yaayu joor kon pour paa bi mën a continuer sëyam ak yaayu ak yaayu maajoor il fallait que yaayu joor euh, ñu éliminé ko ci film bi maanaam mu dese daal ci film bi def accident bi daal bu defee mook sëram ñu dooga retrouvé wu ki nga xamante ne nag moo fot joor ne dafa nopp joor kooku mook joor duñu continuer parce que sëram la waaw léegi noonu lañuy def joor di waxtaan ak tataawam bi di waxtaan ak wu que moom tataa bi seex la tax yaayam mas na ko wax ndax loolu xalaat film bi daal am na sens am na sens trop dëkk yàlla su ngeen yàkkamtee nag du ngeen ko mën a xaar mais man si man am na sens daal kenn découragé kontaan nañu allo waaw ça va man la Marie Hélène théâtre de daal li wax li def daal am na man mu si daal li ñuy yaay joor doxloo joor ba ñu viole ko loolu daal moom def kaa loolu daal moom metti metti na trop moom naa jub nii rek lañ koy bàyyee ma wax ay rek sa yaam yéen kii ni ngeen koy bàyyee rek kii daal ni ngeen koy bàyyee rek aha kii da moom fi la bon tàmbale ba fi la bon yam nag bon laa la wax fi la tàmbalee ca fi kii de xanaa nit melut ne moom moom lii moom nit mënu koo théâtre ba mu mel ne moom kii bon na de bon na bon na moom yàlla ba mu bàyyi théâtre bi sax taamu bon laay wax man. day mel ni man benn côté wax dëgg fa neex yàlla ma dëgg la nag série ku nekk dangay wax sa xalaat mais tamit xel nanguwul daal cheikh bi nekk naar Diop euh, man boog de dama jàpp ne cheikh bi ba tey Mariama dañoo ñëw mu jouer double rôle Mariama bi dem na bien vrai que moom moo ñëwaat. mais ba tey moom mooy cheikh bi euh, Naat Diop nag mënuma wedd na mën na bokk seen seen famille seen ñaari yaay wala dara mën nañ bokk yaama ak joor tamit ñoo bokk benn papa ci sama gis-gis parce que euh, boo xoolee papa joor li muy nettali moom mës na doon yéen ak yaay yaama parce que wax nañ ko foofu yaay yaama leer na ko ne doomam ji muy yaama Naat Diop leer na ko ne yaama papa yi joor moo ko jur mais boobu. Mmh, kee nax na ko mooy xës xaw ma mmh, solo paaram boobu euh, nax na ko xamal ko ne mi ngi liggéey ci nguur gi ministre la et tout ça mu gëm xaalis ba mu ëpp euh, xamal ko ne yaa jur doom ji bi mu demee tout ça ba lépp feeñ tey keroog am na benn film bu bu ñu joué woon soo xoolee ñoom ñaar ni ñu waxee nga xam ne doom ji moom ak joor euh, ñoo bokk benn papa man sama gis-gis loolu la. mais seet bi mënul doon mënul doon naat job loolu c'est impossible loolu mënul nekk ñoom ñëpp soo déggee ne seen histoire toujours dañuy wax Fat Ndiaye Endo parce que même boo xoolee sax kii mi may sax ki mujjee ñëw tamit mi ngi doon wax naan ko euh, sama yaay neewoon dama Fat Ndiaye Endo mooy sa maam peut-être nag mën na nekk benn famille mais naat job mënul nekk seen seex double rôle bi Mariama joué moom moo nekkaat seex bi. waaye moom joor moom ni mujjee moom neexuma dara xam naa moom. maanaam maajoor dafa amul ay mbokk maajoor moom am na tante am bàjjen am am nijaay te ñoo ñëpp walluwuñ ko ci jafe jafe yi moom métti na ci de waaye moo tax xamul fu muy taxaw day wëreelu rek xamul sax lu muy def ak lu muy bàyyi ndax papa ji moom dimbalewu ko côté am rek lay lay seet seetul dara moom li muy seen moom côté am lay lay seen moom daal nu mu def ba jubag rakkam ak jarbaatam loolu lay xool xoolul leneen dimbaliwul maajoor ci lenn. lim koy woon ni yëpp na ñëw liggéey moom ak yëpp nag moom taxul mu jàppale ko ci lenn puusew ko ci mbokk yaayam yi puusew ko ci yaayam yi mu ngi mel ni amuñ mbokk te ñu ngi ay am ay mbokk war a ginde ndokoo ñoom ñëpp ay mbokk lañ ni taxawee de doxul papa ji moom taxawaayam rafetul dara ndax bàjjen ji nag moom waxuñ na ko beneen bàjjen bi mu doon yónni kay la ñuy wax xëy na koko tane bi waaye naar moom moo gën a bon fii kooku moom rey nit rek lay xalaat xalaatul leneen ndax mu la jot ci alal denc nit ba pare di ci laaj ay million moom ci moom rek la yam waaye nag yàlla du ko may ndam de mu ngi noonu waaye fa muy mujjee du neex waruta mujjee fu neex daal mujjee fu neex fu naqari la war a mujjee te woon nen nañ ko toroxal ba ñëpp gis ko film bi doog a jeex waaw loolu noonu mooy sama participer ci épisode bi passé jërë ngeen jëf maa leen di ñaanal nag seen kii avancement ngeen yokk jëm ca kanam merci beaucoup ciao bisous bisous. sot Madior ak Dior ah mu soxna si wax dëgg la kat seen théâtre bi am na chance Madior Dior lu mu def réussir naan Diop lu mu def réussir ah day bëgg ëpp de day ñaar chance waaw loolu laa gis moom loolu laa gis réussir yi doy waaw ah, jot naa nañu kepp leen aywa man ma fone moom maa jooro jooro ñoo a mën a sëy nag sëri bi am sens waaw maa jooro joor moom bu ñu sëyil moom ah sëri bi moom du am sens wax dëgg yàlla waaw seen sey bi fa war a continuer waaw woon loolu mooy sama gis-gis man te loolu daal mooy sama xalaat waaw dana ma neex lool daal ba mën a ma neex waaye mu dem mu am instant yi dem di sëy ak euh, bi loolu daal man gisuma gisuma ci duma ci gis daal sama bopp waaw man ma sañoon moom moom ak maa joor a joomam dañuy sëy waaw ndax fi ñu jaaree moom mooy loolu kon ñoom ñaar dañoo war a mën a sëy sama gis-gis waaw. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu film bi jaaxal na ma ak joor ah man de jaaxal na ma de seen film bi amul fee. waa Pikine moom jaaxal nañ ma dof koo xam ne dangaa jékki-jékki lay wér jaaxal na ma joor tamit xanaa moom bëgguloon joor bëggoon joor xanaa dina ko jaral mu dem seeti ko maa joor daal kenn xamul lu mu bëgg waaye yaay may sa tamit ah moom da mën naa forcer tubaab tubaab ligu lool li muy tubaab tubaab boo jaaxal na ma trop koy forcer moom moom bu njëkk la ma gënoon a neex naar moom bandi la. paa bi moom jaaxal na ma moom itam naa fekk la film bi moom neexatu dara ngeen leen xoolaat seen bopp ngeen yedd seen bopp ngeen xoolaat dem ko neexal tuuti bopp film ne moom neexul dañ ñaa ngi commencé di croiser baax na jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax man maa ngi dëkk Libye Tripoli waaw damaa bëggoon commenter tuuti ci. séeréer majoor ak joor femme bi lu mu wax dëgg naa ko waaw du keesoo man li ma li ma jaaxal ci séeréer bi kese lan moom ma jaaxal ci séeréer bi séeréer bi paa bi sibul dara paa bi dafa war a sib paa bi sibul et puis euh, kii nu mu tudd majoor lu mu def réussir loolu tamit daf ma jaaxal femme bi lu mu wax dëgg la loolu tamit man daf ma jaaxal ci boobu lu mu def réussir paa boo paree tamit paa du sib paa bi du sib benn yoon paa bi dafa waroon sib def suy sib sa même su nekkee sax kee naar job lu muy def su réussir waaye paa bi lu muy def euh, paa bi su fekkee day sib paa su fekkee day sib naar job day wàññi lu muy def c'est à comprendre naar job day wàññi lu muy def waaye paa moo sibul et puis naar job lu mu def réussir loolu kese mooy problème bi waaw waaye a part loolu benn kër gi ban daal man daal film bu neex na ma loolu daal wax dëgg yàlla film film bu ma neex la waaw waaw neex na ma lool maa dama koy suivre bu baax a baax dama koy suivre bu baax baax waaw waaw man fii mooy fii fii kese mooy sama sama problème quoi naar jóg lu mu def réussir ba pare paa du sib paa bi amul benn ñaaw njort ci naar ci naar naar jóg paa bi su doon am ñaaw njort si naar jóg naar jóg lu muy def yëpp du réussir boobaa après day bàyyi xel ci paa bi quoi est-ce que maa ngi leen nuyu bu baax a baax nag kontaan naa ci seen film bi quoi. asalaamaaleykum euh, Madior ak série bu neex la man mu commencé ba tey dama koy suivre waaw waaye dafa des ay tuuti kele yu ñu war a defar ñoom waaw war a avancer tuuti d'accord ma tamit si joor su mu wéree dafa yomb trop comme soxna say lu nga ko waxee daf mu neex la ñëw rek wér loolu dafa yomb war nan waroon nañ ko defaraat bi si kalam mu soog a wér mais nu ko defee moom du yoon mais série bu neex la man ma koy suivre chaque jour waaw heure bu commencé duma ko raté dama koy suivre mais dañuy gën a xoolaat rek seen seen kii nu ngay defaree mais série bu neex la suñ si góorgóorlu rek dina neex incha allah. asalaamaaleykum waa TV waa Sen TV maa ak santam non gis nga série Madiou ak bi nii rek la war a demee sax parce que Dior moom instant bi fi mu nekk fii beneen dund la dund lay dund daal mooy lool. beneen beneen dund lay dund instant bi xam na ne sax xamutu sax kuy maag parce que instant bi xel bi dafa demoon bu mu su mu duggee ci kër bii nii instant bi beneen beneen dund daal muy waaw il faut rek mu dox ba ci biir biir biir mu doog a xam ne muy loolu daal. asalaamaaleykum waa man la Amina man nag dama bëggoon participer ci émission ma ci théâtre ma Coor Coor. vraiment nekk na théâtre bi nga xamante ne neex na torop torop trop man a chaque fois dama koy suivre su ma ko seetaanul ci télé bi su ma ko retewee dama koy seetaan sama portable vraiment neex na torop mais man li ci metti daal lenn kese la mooy yaamu bi nga xamante ne moom instant bi yaay ji moo ko dugal ba nga xamante ne instant yi mi ngi regretté boole ceeg yaay ji moom lu bon lu muy def nit yi yëpp moom instant bi dara dalu ko ba pare moom lum mu bëgg def nit yi da leen koy def encore joor tamit waruñu ko woon violé vraiment théâtre bi neex na trop kontaan naa trop ci yéen vraiment li ngeen di théâtre am na sens sali lu xew TV siyaar naa leen jox leen seen wàccuwaay waa série Madior ak nag moom vraiment série bu neexoon la ci commencement bi wala man bokk mais à la dafa dem ba commencé suuf nit ñi parce que ñoom kenn xamul ins bi lan la ñuy def defuñu lenn loo xamante ni ku ko seetaan di nga ne côté bi dañ fi jàngale wala boog man gisuma ko ci parce que bu dee côté maajoor moom naka nga mën a amee sa njaboot nga ne dama ko bëgg yaa ngi dégg moom mu feebar yow daanaka lijjanteetu ko moom ins bi mi ngi si naajóob ak yaaman def koy tëj mais lijjanteetul joor heure bu xëyee sol semisam bu rafet dàllam yu rafet takk ay veeram génn yaa ngi dégg tëdd ak yaama boobu naka la mën a bàyyee joor mu nekk si àll bi daanaka moom wareetu ko teg si kanta kee nag moom papay Madior tamit naka la mën a jëlee naajo di ko protéger en tant que sa rak même sa mag sa yaay képp ku si def lu bon ku nekk danga ko war a boole ak yoon ñu lijjanti ko te moom xam na ne li muy def danger la mu xam ko ba pare teg si tànkam pour pourquoi amul sama mag la amul sama rak la nit ku deful yoon ku nekk danga ko war a lijjanti côté boobu tamit mënoo fee seetaan ba ne côté bi kii liñ fi joué nii daf may jàngal pour ëllëg non non pare joor tamit su fekkente ni nii dafa feebar dafa dof nee nañ comme nee nañ nañ ko si rey si am man tax rey yaayam bi d'accord ma si woon mais rey nañ ko si xam nga biñ ko reyee mu dof dof ki dafa waroon a yem mais liñ si jël dafa bari man defoon naa fam yéegee ci sareet ba un jour te kooku naan ko joor laay seet foofu noonu moom yaakaaroon nañ ne bu demee dina gisee yaayam moo ëppoon saas ñu ñëw ba fii xam nga ñu indi ko mu mu ñëw naa gis naa sama yaay wëlbatiku tamit naan ma Mariama Joor laa tudd su fekkoon ne dafa dof wéram gi dafa yomb trop waa Pikine nañ xoolaat bu baax li ñuy def ins bi moom xaw ma ci lan ngeen ne mais joué leen. xoolaat leen bu baax nag li ngeen parce que nit ñi dañuy bàyyi seen ité yëpp tamit ñëw ci série bi xam nga mais bu fekkee li ngay seetaan amalu benn importance tamit bu yàggee nit ñi dañuy bàyyeeti rek comme dikkoon xam naa moom à foofu lay mujjee def comme dikkoon rek waaye war nañoo xoolal bu baax neex na trop nag moom chaque jour dañ koy seetaan mais daal loolu naqari ñu ci trop ba pare joor tamit su fekkente ni mu dafa dof dufut naka la mën a xoole bañ koy veyalee.